ok alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi santaat suñu boroom subhanahu wa taala mi ñuy dajale ci ab néegam ñu fas yéene jël téere borom bi am aayaat yuñ ci fàttaliku ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala la yonentam ba alayhi salaatu wassalaam doon bégale ci loolu yal na yàlla subhanahu wa taala jagleel ñu ko am na it ni ngeen ko xamee mbooloo mu daan ànd ak ñun ci jataay bi natt bi nga xam ni dal nañu it tax na ba mënuñu teew ñu ngi ñaan suñu borom yàlla subhanahu wa taala yàlla na tegg natt boobu ci yërmandeem te it ñun ak ñoom yépp yàlla boole ñu ci ña nga xam ne seeni xol day wékku ca jàkka yàlla ya tey mooy juróomi fan juróomeelu fan ci weeru rajab suñ maam yi di ko tuddee ndeyu koor mu tambeeg le 17 it ci la nga xam ne mooy février ci 2021 bi kon mi ngi noonu dugg nañ ci benn weer ci weer yi yàlla wormaal muy ñeenteelu weer bi bu dee yaa ngi déglu rajo yi télévision yi nag façon julli gu nekk façon koor gu nekk façon lu ne da nga ko dégg waaye la wér ca wér mooy amul lenn loo xam ni am na tegtal yu wér yu jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci benn jaamu yàlla boo xam ni digle na ko ñu def ko ci weeru rajab loolu yi kon ñu bàyyi ci xel bu baax ñu ngi war a jël suñu ñaar fukkeelu aaya ak ñett ci suratul ahzab fi suñu borom di waxe min al muminina rijalun sadaqu ma ahadu llah alayhi insha allah bu dee ne Cheikh Ousmane pare na mu jëlal ñu suñu bind bu jëkk
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيماً ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من سياصيهم وقذف في قلوبهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا بارك الله فيكم سنبرام سبحانه وتعالى مني من المؤمنين bokk na ca ña gëm day rijaalun sadaqu ma ahadu llah alayhi ay góor yoo xam ne ñoom day dëggu nañu ca lañu déggante woon ak yàlla fa minhum man qada nahba am na ci ñoom ñoo xam ne jooxe nañu la nga xam ne nii moom mooy seen jubluwaay mooy lañ jublu woon te mooy dem nañ ba dee fi sabilillah wa minhum man yantazir am na ci ñoo xam ne ña ngay nekk di xaar wa ma baddalu tabdila ñoom day soppi wu ñu ak soppee li yajziya allahu siddiq li li yajziya allahu sadiqina bi sidqihim ngi lee yàlla fay ñu dëgg woon ci seen dëggu ga wa yuaziba al munafiqin mu daa di mbugal ña nga xam ne ñooy naafiqiya inchaa su dee neex na ko aw yatuuba alayhim wala boog mu daldi leen di nangul ak tuub inna allaha kaana gafuran rahima sa borom yàlla moom nekk na koy jéggalaate nekk na koy yërëmaate wa radda allahu alladina kafaru bi xaysihim noonu la yàlla dàq yi firi ca seen mer mañ mer lam yanaalu xayra jotuñu benn yiw wa kafa allahu almuminina alqitaal yàlla fegal julit ñi la nga xam ne mooy xeex wa kaana allahu qawiyan aziza sa borom yàlla nag mooy borom kattan gu dëgër gi waaye mooy ki not léppit jalla wa ala mi al aziz wa anzala allazina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim noonu la wàccee ñi dimbali woon yéeféer yi te bokk ci ahlul kitab te la nga xam ne mooy tata bañ tëju woon muy seen forteresse ba wa xazafa fi qulubihim ru'b mu sànni ci seen xol yi di tiitaange fariqan taqtuluun benn kuréel ba ngeen rey leen wa tasiruuna fariqa beneen kuréel ba ngeen jàppaleen jaam wa awrasakum ardahum wa diyaaruhum mu donnloo leen seen suuf ya ak seen kër ya wa amwaaluhum ak seen alal ya wa ardan lam tata'uuha am na it beneen suuf boo xam ne tegagu leen fa seen tànk joggeegu leen fa wa kaana allahu ala kulli cheyin qadira doonte ne yàlla bépp mbir mooy ka ca am kattan mi ngi noonu mbokk ñu ngi nekkoon ci jamono bi gën a tar bu yonent bi ak i sahaabam dundoon te mooy bi mboolem yéeféer yi waroon madina ña féete penkook ca sow ndeyjoor ak càmmooñ ñoom ñépp ñu daldi dëppoo ci ni dañuy fay lislaam ci kaw suuf àllarba bale ca lañu nekkoon suñu borom feeñal ca taxawaayu naafiq yi nga xam ne ñoo doon digge ni suñ dajeeg noonu yàlla yi duñu daw mukk ba mbir ba ñëwee ñu daal di daw borom bi nag ne am na ca julit ña ñoo xam ne ñoom ñoom day lañ diggante woon ak yàlla ca mooy dañ ànd ak yonent yàlla bi duñ ko woon gannaaw mukk ci àdduna looli yàlla subhanahu wa taala nee na ñoom dëggal nañ ko ba la nga xamee ni nii la nekkoon seen warugar muy nax ba fexe nañ ba joxe ko doonte ne am na ca ñoom ñoo xam ne ñi ngi nekk di xaar ak xaar bokk sahabatul kiram ñi ngi noonu da ngay gis ne lu bari ci ñoom avant xeex bi di ñëw xeex nañ ca badr ñu bari ci ñoom ca lañu daanoo dëggal lañu diggantewoon ak yàlla keroog badr la ñoom hamza daanu keroog la ñoom musab daanu mi ngi noonu ak ñeneen ci saxaaba yi ñu àndaloon ñu dem uhud juróom ñaar fukk ci ñoom non kon hamza ma nga daanu ci uhud mi ngi noonu ñu ngi jégglu ci loolu hamza ak ñoom àndaloon ñoo daanu ci uhud juróom ñaar fukk ca ñoom nga xamee ni nii suñu borom yàlla subhanahu wa taala bàkk na leen tagg leen ci ni ñoom day lañ diggante woon ak yàlla dëggoo niñ ca bokk na ci ñooñee ku ñu wax anas ibnu nadr yonent bi alayhi salaatu wasalaam gis nañu ni dafa xare badr xare badr ba siiwaluñ ko woon ba yonent bi ñuy mu ne ah yow mi yàlla yónni xeex bi nga jëkk a xeex ak jéeféer yi man anas ma wuute ko bis bu ma yàlla may occasion bu ma àndee yow jihaad yàlla dana gis lan lay jëf keroog xare uhud yàlla indi na nattu ba lu bari ci julit ñi daw anas dafa xotti mbar bi muy dugal jaaseem fas yéene dootu ko ci dugal ci mukk riir jëm ci yéeféer yi mu dajeeg talxata ibnu ubaydallah talxa na ko waaw anas foo jëm mu ne ko ilal jannati wa rabbul kaaba maa ngi jëm aljanna maa ngi wàcc luur mu ne xetu àjjana mi ngi may xëj gannaaw jabal uhud noonu la demee dugg ci yéeféer yi di xeex di xeex ba bi xeex bi pare sërëm moo ko mënoon a xàmmee ci jaara bu mu takkoon ñu ne lu jege juróom ñett fukki jam jam jam nañ ko ko radiyallahu anhu kon bokk ñooñu ñoo dëggaloon gannaaw ba suñu borom nee na am na ci it ñoo xam ne ñoom pare nañu ñi ngi xaar occasion bu ñu dëggale lañ diggante woon ak yàlla soppeeku ñu ak soppeeku tafsir bi passé maa ngi leen di wax kii nga xam ne mooy Khalid ibn Walid bi muy faatu ca lalam mu ne xoolal xaalit yaa ngi faatu mel ne comme ni mbaam yi di faatoo ay am lu ko metti ndax daa bëggoon a faatu fi sabilillah te loolu mbokk tamit mooy jubluwaay bi nga xam ne yonent bi alayhi salaam daana wax ne koo xam ne nii day dëggu na ci yow ne bu doon jihad am na da nga taxaw xeex ba sa bakkan bu fa doon des des fa yàlla dana la booleeg shuhada yu yowmal qiyaama même boo faatoo sa kaw lal yal na yàlla boole ñu ca ñooñee moom la borom bi ndax minhum man yantazir soppi wu ñu it ak soppi te loolu it mbokk julit ñu moytu soppi diine yàlla ji yonent bi alayhi salaam wax nañu lu tiitlu nee na yowmal qiyaama bu taxawee ci déegam ba di woo julit ñi malaaka yi daañ xaaj mbooloo mu bëri dàq leen mu ne yàlla ñi sama xeet lañ bokk ñu ne ko déedéet yow mi yàlla yónni ñii de babdalu tabdila la nga fi indoon yëpp dañ ko soppi yal na yàlla musal ñu ci loolu borom bi nag nee na lii def na ko ngir fay ña nga xam ne dañoo dëggu woon ci seen dëggu ga mbokk ak dëggu loolu mooy tax yowmal qiyaam nga bokk ci waa aljanna al yowma yanfau sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al anhar xaalidina fiha abada borom bi it nee na naafiq yi day ñoom lañ waxoon defuñu ko daw nañu wane nañ gannaaw su neexee yàlla mu bëggal leen doonte ne su neexee yàlla mu jéggal leen allahuma lu dul li yàlla tëje aaya bi mooy yàlla mooy jéggale mooy yërëmaate moo tax la ëppoon ci ñoom yàlla jéggal na leen mujj nañu sellal seen diine ba dee ci lislaam radiyallahu anhum gannaaw ba nag yàlla doog a dellu si ci xeex bañ doon xe nettali alarba bi passé suñu borom nee na moo dàq yéeféer yi ca mer ga ñu meroon amul benn yiw boo xam ne jot nañ ko dépense nañ alal ju dul jeex génn seen kër plus d'un mois ñëw nekk ci sedd bi teewul nibbi nañu lañ bëggoon amuñu ca dara suñu borom nee na moo fegal jullit ñi ba xeexuñu teewul dàq na seeni noon loolee muy wone na yàlla mooy borom kattan gi yàlla mooy ku not lépp loolu yonent bi fàttiwu ko heure bu masaan jóge ci xeex daana wax ne day suñu borom yàlla mi ngi noonu alhamdulillah sadaqa waada wa nasara abda wa hazama al ahzaba wahda ñi ngi sant yàlla moo dëggal ab digam dimbali ab jaamam moom dong mu dàq kuréel yi julit ñi xeexuñu loolu it mbokk di la jàngal ba tey yow julit heure bu àdduna doxee ba ay jafe-jafe wër la ba ndar képp nga la way bul jàpp ne àdduna tukki na suñu borom yàlla heure bu ko neexee génne la ca jafe-jafe ya ak jafe-jafe ya lu mu tar-tar ak jafe-jafe ya façon bu mu mën a doon ci ay façon mbokk yéefiri màkka dem nañu ba ngeen di déglu histoire bi àllar bi bii passé xamoon nañ ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak i sahaaba yi amoon nañ ñaari mbir yu grave yu leen ndarkeppoon benn bi mooy yéeféer yi jóge ci biti ñaareel bi waa bani qurayza ñi nekkoon ak moom ci biir madina trahir ko bi yonent bi ñëwee ak i saxaabam ni bi seeni kër suñu borom yàlla yebal jibril ne ko demal ca waa bani qurayza ñoom it nga jox leen na nga xam ne mooy seen wàllu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn na saxaaba yi maa ngi leen di digal boo kenn ci yéen julli takkusaan lu dul mën ko jullee ca bani Qurayza loole mbokk da ngay gis ni saxaaba yi noonu la ñu takkuwaate ca déggal gañ déggal yàlla ak yonent yàlla gannaaw bañ toogee lu jege un mois yoo xam ne kenn talul woon a dem sa kër yonent bi joxewaat ordre ne jóg leen ñu dem attaque ji li di bani Qurayza bokk na benn masala boo xam ne sonal na julliti tey donte ne bu ñu fàttaliku woon histoire bani Qurayza dana noppal ñu bari yonent bi bi mu waxee loolu masalan bani Qurayza ña nga woon ngor donte ne ñu ngi doon waa ngor ñu baax ngeen ñu ngi noonu waaye damay joxe misaal bani Qurayza ñu ngi woon ngor yonent bi ne saxaaba yi bu kenn julli tàkkusaan lu dul na ko jullee ngor léegi ñu dem bi ñu demee ba yegg yoof jant bi di waaj a so am ay saxaaba yu ne eh nañ julli tàkkusaan balaa jant bee so am ñeneen ñu ne déedéet ñun duñu julli yonent bi nee na bu kenn ci yéen julli lu dul daa dem banni ca ca ca banni xureysa bi ñu xëccoo benn mbooloo taxaw julli beneen mbooloo bi ñoom continuer ci banni xureysa jant bi sono ban demee ba ca banni xureysa lañ julli fekk tàkkusaan paase na yonent yàlla bi ñëw saxaaba yi netti lu ko li xew ma ñun kat lan ñu santoon lii moo xew sa gannaaw rasul sallallahu alayhi wa sallam noppi waxu ca kenn ne yow yaa nekk ci dëgg masala boobu lan la ñuy jural yonent bi alayhi salaam nee na bu ngeen gisee weer bi wóor leen su ngeen gisee weer bi wari leen waaw léegi nag bu ngeen gisee ndax yonent bi àdduna yépp lay waxal loolee am na mbooloo mu bëri ci borom xam-xam yi ne àdduna yépp lay waxal weer yi fu mu feeñ ñëpp war a woor gisin boobu man mooy gisin ba ma tànn waaye nag am na ñeneen ñoo xam ne dañ ne déet weer wi du feeñ fépp man naa feeñ ca goxi Asie fekk waa Afrique duñ ko gis man naa feeñ Amérique fekk ne waa Asie duñ ko gis kon kay gox bu nekk day xaar ba gis ko loolu la ñu tuddee ixtilaaful mataali mu am ñu jàpp lii am ñu jàpp lii su ko defee la ñu doon noppal mooy ku nekk position ba nga ci jël nga jàpp ko ñaan yàlla nangul la ñaan yàlla nangul ko wuute ak yow loolee bu amee rek jàmm na ñooy donte ne nag nañu xam ne ñun waa Sénégal dañoo am ñetteelu mazhab bu bokkul ak mazhab yi jëkkoon mazhab yi jëkk mooy ndax ixtilaaful matali la ñuy compter wala adduna yëpp la ñuy compter bu dee ixtilaaful matali la ñuy compter mboolem Afrique de l'Ouest fu fi weer yi feeñ ñëpp war a woor waaye bu dee Sénégal ñun dañ naan déet sunu quatorze régions yépp weer yu feeñu fa bu feeñee Gambie suñu yoon niwu ca feeñee Guinée suñu yoon niwu ca Mauritanie suñu yoon niwu ca loolee mbokk bokkul ak mazhab ba jëkkoon almuhim saxaaba yaa ngi noonu dem nañ bani Xurayza biñ ñii ñu ndar képp leen waxoon naa leen ne ñoom seen dëkk dañ ko doon tëcc ndar képp nañ leen pendant ñaar fukki fan ak benn saxaaba yi mënuñu dugg waaye ñoom it kenn mënute génn gannaaw ba la ñu yónnee benn ndaw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ñun kat dañoo bëggoon léegi nga woo Saad ibn Muaz mu atte suñu diggante waay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen nangul naa leen loolu fekk la jiitu woon mooy am na ñu ñuy tuddee waa bani nadir dañoo jëflante woon ak benn naafiq bu ñuy wax Abdullah ibn Ubay ñooñee ba ñu demee yeneen mu négocier leen donte na ñoom it haute trahison lañ def ba jël leen foofee ñu yóbbu leen xaybar ci histoire boo xam ne dina ñëw ca kanam amma ñii ñu woo Saad ibn Muaz Saad bi mu ñëwee yonent bi alayhi salaam ne ko looy atte ci sa ñii nga xam ne ñoo farandoo ak yow démb ak barki démb mu ne yéen a bañ Qurayza ndax lu ma atte da ngeen ci nangu ñu ne ko waaw waaw mu ne waa wàlle gi ndax du ma àtte da ngeen ci nangu mi ngi ci jublu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko waaw waaw te fekk na saat jamono bi ñuy xeex ci ah weer wi yonent bi jàkkaarloo gi yéeféer yi nga xam ne xeex bi mi ngi yemoon rek ci ay flèche yu ñu doon sànnante am na ci benn flèche bu daloon ci loxo bi ba dagg si ditu loxo bi mu ne ay yàlla su dee ne damay nar a faatu yàlla na nga may ma dund ba nga seral sama xol ci banni Xurayza yi nga xam ne ñoo def haute trahison bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci loolu la Saad ibn Muaz ne man day li may àtte mooy mboolem ku mën a xeex ci ñoom nañ ko rey mboolem seeni doom ak seeni soxna ñu def leen ay jaam bi mu waxee loolu yonent bi alayhi salaam ne allahu akbar saat day atte nga atteeb ka nekk ca kaw juróom-ñaari asamaan ya muy yàlla suñu borom subhanahu wa taala te it loolu mbokk mi ngi noonu ngalla waaye li yahud yi gëm nasaraan yi gëm ko julit ñi gëm ko mooy yàlla nga ca kaw arasham ba ca kaw asamaan ya loolu li ci nekk ci ay tegtal jarul sax wax xelu doomu aadama yépp nangu nañ loolu lu dul ñi seen xel yàqu mi ngi noonu kon noonu la yàlla wàccee tiitaange ci benn xureesa ñu nangoo wàcc ci atteb saat ci noonu lañ julit ñu duggee ci seen biir xool képp koo xam ne majeur na mat naa xeex dañ koo rey képp koo xam ne majeuragul ñu jàpp ko yeew ko yóbbu yóbbu madina mu doon pay gu leen yàlla pay ci un mois bi nga xam ne suñu borom teg na ci ñoom natt boo xam ne musule ne teg natt bu tol noonu gannaaw bi it yàlla bégal leen ne leen lii ngeen am ci bànni xuréesa day teewul am na nag lu ko gën a yaatu ca mooy mi ngi ñëw ca kanam xam leen ne yàlla moo am kàttan ci lépp ca ma ngi ci doon jublu waa faris ak ruum ca noonu la ko yàlla mujj defee mi ngi noonu jalla wa ala
يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها وأعتدنا لها رزقا رزقا كريما
بروم جل وعلا كن مني يا أيها النبي أيو ينتبي قل لأزواجك وخلص سخني إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها سودين دنجن نكدي بغ دندق أدنجي أكبتارم فتعالينا أمتعكن kaay leen ma bànneexal leen jox leen ay xéewal wa usarrixkunna saraxan jamila waaye yewwi leen la nga xam ne mooy yewwi goo xam ne gu rafet la bàyyi leen bàyyi gu rafet wa in kuntunna turidna allaha wa rasula su leen nag da ngeen bëgg yàlla ak yonenti yàlla wa daar al axira ak kërug alaxira ga ca ajjana fa inna allaha aadda lil muxsinaati min kunna yàlla de mi ngi waajal ña nga xam ne ñoom ñooy rafetal ci yéen ajran azima pay ya nga xam ne mooy pay gu màgg ga mi ngi noonu yaa nisa annabi ay yéen soxna yonente yi man yaati min kunna bi fahishatin mubayyina képp koo xam ne indi na ci yéen ci ñaawteef boo xam ne nii bu ñu leeral la yudaaf laha al azabu di fayn dees na ko fulal mbugalam ba ak fulin wa kana zalika ala allahi yasira te loolu day nekk na ci yàlla lu ko yomb lool waaye nag wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasuli koo xam ne di day wommatu na te mooy mi ngi noonu diggal ñeel yàlla ak yonent yàlla wa taamal saliha te jëf-jëf ji yiw nu'tiha ajraha marratayn daan ko jox payam ga ñaari yoon wa a'tadna a'tadna laha rizqan karima te waajal nañ ñeel ko wërsëg woo xam ne wu tedd la mbokk diine lislaam mooy diine yi dund gu complet ni ñu war a organiser lii di société bi noonu la ñu war a organiser kër yi loolu moo tax ba yonent yàlla bi nekk na misaal sànq ba ko yàlla di waxee laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ña nga nekk ca front ba di guerre mu nekk le général d'armée ba nga xam ne moo jiite waaye it mbokk société bi balaa baax day fekk ne kër yi ñoo jëkk a baax looloo tax suñu borom dugg kër yonent yàlla bi yonent yàlla bi këram dafa neexul woon ñi soxna yi daan dund ay coono amul kenn ci yéen lu dul dégg na ay yoon ñu ne kër yonent bi daan nañ toog lu jege ñaari weer cin du fa takk lu ñuy lekk tàndarma ak ndox mbokk loolu neexul de loolee yonent bi di ko dund ñu dema dema dem ba mu commencé nag am ay ngañaay soxna yi nag daal di ñëw ci moom koy yow mi yàlla yónni dañoo bëgg na nga soppi kër gi ca mooy ñu am li suñu moroomi jigéen ñi di am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy royukaay suprême bi yàlla tànn ko pauvre yi riche yi ñépp war a roy ci moom suñu borom yàlla da koo tànnaloon mu doon ku dëddu àdduna ndax mbokk àdduna dafa gàtt suñu borom yàlla soofantal ko yonent bi bëggul woon màggal lu yàlla soofantal suñu borom subhanahu wa taala yonent bi daana wax ne mu ni bu doon te ne àdduna dafa mel ci yàlla ne benn laafa yoo bu doon yàlla ab àdduna léppam yàlla da koo conservé comme benn laafa yoo ma saqa minha kaafiran charbatama kon yéefar du ci naan ab góox kon yàlla dafa bañ àdduna yonent bi moo taxoon bëggul woon lenn ci àdduna mu ne soxna yi ci loo xam ne nii yàlla moo wàcc jibril proposé ko ne ko sa soxna yi nee leen su dee dañoo bëgg a taarub àdduna comme jabari boor yi ni ñuy mel amul benn problème képp ci ñoom ku tànn na wax lum bëgg ci alal nga jox ko ko waaye nag condition bi mooy da nga koy bàyyi bàyyi gu rafet dootul nekk sa soxna mi ngi noonu képp koo xam ne nii nag bëgg na am ngërëmal yàlla ak ngërëmal yonent yàlla bëgg allaaxira yàlla teral ko ñiy rafetal ci ñoom day pay gu màgg mi ngi leen di ñeel te mooy ñooy dëkke firdawsil aala ñooy dëkke wasila pale ajjana ba yonent bi alayhi salaam di dëkke lii bi mu amee soxna yi képp ci ñoom yonent bi daa wéeta jëw si néeg tari la aaya yi ñoom ñépp mboole seen dëppoo ci ne ahaka yi ñi ngi muñ la nga xam ne mooy li ñuy dund ak yonent yàlla bi ngiree ëllëg ñu nekk ay soxnaam ci aljanna ca noonu la leen ko yàlla jalla wa ala defal mbokk lii mooy misaal bi nga xam ne suñu borom wax na ko mu wëlbati ko nag ne ay yéen soxna yonent yi bu mu leen war mukk ngeen ne ñi ngi ci suufu yonent yàlla lu ñu neex def képp koo xam ne indi na ci yéen aw ñaawteef daañ ko fulal mbugalam duubul ful lee faccàmmee di def fee yéen kenn ci yéen ku ko ci def duubul mbugal ngay am loole nekk na lu yomb ci yàlla yàlla amul doom amul kenn koo xam ne ni ku mu jomba def lu bon la looloo tax mbugal na bàyyi ibrahim mbugal na doomi nuux mbugal na soxna nuux soxna luut ko nit yii nit li may fonk fonk sab yonent bu leen jàpp mukk ne comme ñun ay soxnaam lañu xëy na lu ñu neex def déedéet ku ci def bakkaar danaa ko dubleel la nga xam ne mooy ak duble doonte ne faahisha boobu ci wax ju ñaaw la yem yàlla moo aar soxna yi yonent du ñu njaaloo doonte ne faahisha buñ ko booylee dina ëmb njaaloo ëmb wax ju bon ëmb leneen leneen suñu borom nag ne képp ci yéen koo xam ne wommatul na yàlla ak yonent yàlla jëf-jëf ju baax lépp lu jullit ordinaire def bu ma ko ca fayee benn pay yéen ñaari pay laa leen di fay te loolu mooy maandut ak yàlla bu ngeen defee benn bàkkaar double bàkkaar laa koy considéré kon it bu ngeen defee benn tuyaaba double tuyaaba laa koy considéré te it képp koo xam ne def na lu baax ci yéen maa ngi koy waajal la nga xam ne mooy pay ga gën a tedd mi ngi noonu Cheikh Ousmane
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا jazakumullahu xayra suñu boroom subhanahu wa taala kon mu ne ay yéen soxna yonent bi yaa nisaa annabi ay yéen soxna yonent bi lastunna ka ahadin min annisa melu leen ne kenn ci jigéen ñi in taqaytunna su dee da ngeen ragal seen boroom fala taxda'na bil qawlu bu leen nekk di nooyal ci ay wax fayatma allazi fi qalbihi marad mu daal di xemmem ka nga xam ne xolam feebar da caa nekk wa qulna qawla maarufa day leen wax wax joo xam ne wax ju ju ñu xam la wax ju jub ju ñu xam wa qarna fi buyutikunna sax leen ci seen kër yi wala tabarrajna tabaruj al jahiliyati al ula bu leen nekk di génn génn ak jahiliya gu jëkk ga muy réer gu jëkk ga wa aqimna salata wa atina zaka e waay taxawal leen julli te joxe azaka wa ati'na allah wa rasula te ngeen topp yàlla ak yonenti yàlla innama yuridu allah yàlla day mi ngi bëgg li yuzhiba ankum rijsa ahla albayt ngiree mu teggi ci yéen yóbbu ci yéen lépp loo xam ne ak sobe la yéen waa kër gi wa yutahirakum tathira mu laabal leen da nga xam ne mooy ak laabal wazkurna ma yutla fi buyutikunna e way fàttaliku leen li ñuy jàng ci seen kër yi min ayatillah te la nga xam ne mooy aayay borom ba wal xikma ak sunna ba nga xam ne mooy xereñ ga koy firi inna allaha kaana latifan xabira sa borom yàlla mooy alatif mooy borom yërmande da nga xam ne xam na la gën a suufee ci lay nekk ci jaamam waaye mooy ki ñàkk kumpa it ci lépp lu jaamee nekkee mi ngi noonu mbokk suñu boroom day wax soxna yonent bi ne day leen def attention ndax yéen yéemu leen ak yeneen jigéen ñépp mbokk da ngay gis ne ak mbon su dee ne yonent bi ñépp defarayukaay ay soxnaam dañoo def ak mbon ndax keneen ku dul soxnaam dana jomb def loolu déedéet kon xam leen ni ay royukaay ngeen moytu leen di def lenn loo xamee ne nii nit ñi dañ leen cay roy soo gisee lu bari ci doomu aadama yi dañuy jàpp ne ah sëriñ si nga xam ne ñoom lañ yaakaar seeni jigéen ñii lañ mel naa lañ mel kon ñu jàpp ne loolu bu aayoon duñ ko def loolee mbokk nañu gis ne nekk na loo xam ne wurta nekk am na ci kenn koo xam ni nekkoon na fi xalif général am suñuy dëkkandoo yu demoon ziar ko mu ne leen day lii ngeen gis sama kër day yéen jigéen ñi bu leen ko roy de sama doom yaa ngi nii de nee naa ci képp ci ñoom ku nangoo saxal muuraay danaa ko yóbbu mag bu leen dem mukk ngeen naan damaa gis kër sëriñ ba nangam ak i nangam mbokk kooku yal na yàlla subhanahu wa taala jéggal ko ca yërëm ko waaye quand même benn misaal la rek pour wone ne ngal la waay yow mi nga xam ni da nga askano ci ku ñuy yaakaar xoolal ndax boo daanoo rek da ngay daaneel ñu bëri kon fexeel nekk royukaay bu rafet suñu borom yàlla mu ne leen bu ngeen dee wax ak góori jàmbur yi bu leen nooyal seen wax comme ni ko jéegi Sénégal di defee boo leen dajeeg ñoom ci mbedd mi nañuy laamisoo góori jàmbur ya duñ ko def ak seen jëkkër duñ ko def ak la nga xam ne mooy seen en frère yi ñu bokkal ndey ak baay mbokk suñu borom nee na góor ñi am na ci ñoo xam ne seen xol daa feebar bu ngeen dee wax ak ñoom bu leen nooyal wax wax leen rek wax boo xam ne wax bu jub la mu des beneen problème mooy bi ñu yàlla nattoo tey mooy whatsapp wa ma adraka mal whatsapp mbokk tey jii jokkoo yi am diggante góor ñi ak jigéen ñi wax yoo xam ni wax ree xaqataay koo jigéen ñoo xam ne heure bu ñuy waxee góori jàmbur ay audio yoo xam ne ni audio yu gudd gudd gudd nooyal seen wax ba mara de tali mbokk loolee xam leen na daganul nañ ci bàyyi xel borom xam-xam yu tombewuloon ak téléphone am na lu ñu daan wax dañ naan nooyal jigéen nooyal làmmiñam ci góor mook mu nooyal ko ci bind ñoo yem te ñoom day xamuñoon luy message waaye ñun ñi nga xam ne ñoo tombi ak i message xam nañ ne am na xale yu jigéen yoo xam ne léeg-léeg ñu yónni ay message ay góor yu jàmbur bu liiree message ba fokk mu dem yeesal njàppam mbokk loolu musiba mënut a passé loolu su ko defee yooyu yépp ci ay forme la yoo xam ne suñu borom mën a moytu leen ko loolu muy benn ñaareel bi mu ne ngal la waaye toog leen ci kër yi mbokk jigéen place am mooy na toog ci kër ga bu mu génn lu dul ci lu munta ñàkk su demee bay génn nit bu mu génn na jaahiliya doon génne ma jaahiliya bu jëkk luñ daan génne mooy dañ daan génn daaw ñu muur seen awra dañ daan génn di feeñal seen taar borom bi mu ne fexe leen ba yéen bu leen def loolu yéen jigéen ñi jullit ñi ci ñan la ko jaarale ña gën ci ñoom mooy soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu dee na it la leen di mën a dimbali mooy taxawal leen julli ndax julli mooy dox diggante nit ki ci def lu baax ci ci def lu di mooy dimbali nit ki def lu baax mooy dox digganteem ak def lu bon day leen génn zakat te génne zakat boobu it ñaka mënul it nañuy baril di sarxe ndax yonente bi alayhi salaam nee na woon jigéen ñi ëpp sawara kon bari leen di sarxe gannaaw ba nag mu ne topp leen yàlla topp yonente yàlla ca xam ne yàlla bëggul lu dul laabal leen mooy coono yim leen seetaan ngeen di dund ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam su ngeen añee du ngeen reer lii yàlla teg ci yéen ñëpp def leen bëgg a laabal jëree ngeen doon ay royukaay mu laabal leen la nga xam ne mooy ak laabal gannaaw ba it suñu borom jeexale ko ne yéen soxna yonente bi fàttaliku leen aayay borom bi ñuy jàng ci seen kër yi fàttaliku leen sunna bi ñuy feeñal seen kër gi donte ni ne mbokk aaya yooyu dafa am lafziya ak maanawiya mooy aaya yu ñuy jàng ji alxuraan di yonente bi di jàng ak jëfe ga nga xam ne ma ngi koy jëfe loolee nekk al xikma bàyyi leen xel loolu te lii it mbokk julit moom la tey kër yi ëpp këri julit ñi manki mooy kër goo xam ni ña fa nekk dañuy fàttali ko aayay borom bi dañuy fàttali ko sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la nga xam ne moom lañ ko remplacé yéen ñëpp xam ngeen ko mooy quatre vingt dix neuf pour cent këri jullit ñi tey télévision ba fa nekk moom mooy jàngale ay aayaam moom mooy jàngale sunnaam da ngay gis xale boo xam ne judd na ba toll ne baayam musul toog ci kër ga dégg ñu naan fa qaala allah qaala rasulullah lépp loo xam ne xam nañ ko ci àdduna télévision boobu moo leen ko jàngal ku nekk ci ñun war a bàyyi xel lan lay lay boroomam jalla wa ala heure boo xam ne daje naag moom ci loolu borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne mooy latif latif day firi borom yërmande latif day firi ki ñàkk benn kumpa ci ay jaamam te it bala ngaa mën a yërëm da ngay xam lépp mi ngi noonu mu ne it mooy ka nga xam ne mooy alxabiir kon mbokk tey bindu baa ngi noonu yow julit bàyyil xel foo mën a toll sa relation bi ngay am ci société bi waaye relation bi ngay am ak sa njaboot moo tax suñu borom yàlla wax ñu ne qu anfusakum wa ahlikum naara yow yeneen bi bala ngaa defal yeneen kër yi xalaatal defal sa kër ba pare waaye yow it Samba Diop bala nga xalaat ci yeneen kër yi loo man def ko ci sa biir kër yal na yàlla laabal ñu suñu kër yi yal na yàlla def ko kërug yonente ba sallallahu alayhi wa sallam yal nay doon kër yoo xam ne dañu fay jàng aaye borom bi kër yoo xam ne dañu fay fàttaliku sunna yonente bi mi ngi noonu wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ala def ne moo ko yónni li tuaziruhu wa tuwaqiruhu suñu borom mu ne dañ ko war a jàppale dañ ko war a respecté ndax kenn ci ñun bëgg na ñëpp taxaw ci mbooloo naan sama yaay moo gën yaayu diw ak naa kenn ci ñun bëgg ko de loolee mbokk kon mbiri ñàkki teggin la loolu muy muy benn ñaareel ba it yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam borom xam-xam yi dañoo am ixtilaaf ay way juram ndax dañ leen di considérer ay yéeféer yoo xam ne dañoo dee kéeféer wala dañ leen di considérer ñoo xam ne dañoo dee ci fatra mooy ñoo xam ne dajewuñu ak yonent ca ñooñu dajewuñu ak yonent bala ñu caa xam kay jullit ak kay yéeféer yowmal qiyaama lay doon ba yàlla nattu leen yónni leen ab yonent comme ni mu ñëwee ci ay aaya ndax suñu borom mu ne wa ma kunna muazibina hatta nab'atha rasula loolu képp koo xam ne miin na ay tafsir da ngay dégg ku ñu wax muhammadul amin shinqiti moo bind adwaul bayaan te tafsir boo xamee ne nii néew na bu ñu koy méngalal ci kaw suuf day tagoog wax bu bëri ci mboolum ulama yi nekk madina wax preuve yoo xam ne kenn du ko teggi ci ne yonent bi ay ay ay waajuram ci fatara lañ dee dajewuñu ak yonent te suñu borom nee na du ma mbugal lu dul ma ma génne yonent kon seen mbir dañ koy bàyyee ak yàlla amma loolu luñ ci mënoon a doon même bu doon tene sax da cee am preuve mbokk yeneen yàlla bi dañ koo màggal nga war a màggal waaye taxaw nga naan waajur yonent bi lu su yoon ci waajur yonent bi man samay waajur moo gën waajur yonent bi mbokk loolu loolu loolu loolu ñaaw na trop tey jii nañu xool rek sëriñ si nekk Sénégal ndax am na kenn kum ci ñemee ni waajuru sëriñ diw gënul sama waajur waxuma mu ne de sama waajur moo ko gën ndax am na kenn kum ñemee ni waajuru sëriñ diw gënul sama waajur ndax ñu mel na ko loolee kon parce que sahabatul kiram jeex nañu moo tax nit ñi wax jëmale ci yonente bi alei salatu wasalaam li ma wax daal mbokk wax la ju bon wax la ju ñaaw yonente yàlla bi képp ku koy tudd donc ko war a tudd ngir màggal ko waaye kenn waru koo tudd ngir suufeel ko ba nga xamee ne képp ko koo xam yonente bi bu toogoon dégg loolu ah gaa yi loolu neexul dégg de sahabatul kiram ñoo ko gën a xam waajuru yonente bi ndax kenn ci sahabatul kiram wala téere yi tuxal kenn mën na ci wax wax ju ñaaw joojee loolee ñu bàyyi ci xel bu baax yonente yàlla bi boo déggee turam sallallahu alayhi wa sallam yonente yàlla bi màggal ko yonente yàlla bi wet ko yonente yàlla bi wormal ko amma nag di wax wax ju ñaaw joojee la ko waral mooy ñàkk diine ak it réew moo xam ne amuñu yëg-yëgu diine yëg-yëgu tarixa la ñu am ndax loolu mu wax boo ko waxoon kenn ci sëriñ si léegi Sénégal tàkk loolu mi ngi noonu yàlla na yàlla may ñu aafiye fi dunia wal axira mi ngi noonu yaakaar naa mbokk mënees na da yem ci loolu ñaan yàlla dekkalaat cofeelu yonent bi ci suñu xol dekkal ko ci xol bépp julit mi ngi noonu duñu dugg àjjana mukk lu dul moo ñuy gënal képp ko yàlla bind wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain